mu jëm ci wax yi nga xam ne wax na ko ci audio yu ñu waxoon ñun euh, ci fan yi weer ci wàllu ñaari bayit yoo xam ne dañ ko askanele ibnu arabi alxaatimi euh, ma waxoon ne ñaari bayit yooye wérul askan wi ci boppam askan wi ne ibnu arabi moo ko wax loolu wérul xaamidul fiqi mi nga xam ne moo ko wax te muy sëriñu Fadel maanaam boo gisee Fadel di ñu saaga ak eh, di wax lu maanaam 36 minutes yëpp ci ay ngàññeeg yu mel noonu lépp li ko weral mooy dañoo wax ne sëriñam boobu di xamid di bokk bokk maanaam bokk ci ay sëriñam loola mu askanele ibnu arabi ne moo ko wax loola moom sëriñ booba day fen waaw xam naa lool nag bokk na ci li nga xam ne moo waral eh, yuuxu gi muy yuuxu yëpp waaye loolu boo bëggee génne sëriñ bi ci loolu dangay indi luy wane ne ibnu arabi moom moo ko wax ba ñuy wax itam bañuy wax itam e, booba yeneen téere ndax wax nañ ko wala waxuñu loolu loolu taxuñu woon a jóg mosuñoo tudd sax lu mel noonu mosuñoo wax ne ku ko xam ci beneen téere indi ko déedéet dañoo waxoon ne lii xaamidil fiqi wax ne ibnu arabi moo ko wax nañu indi indil téere ibnu arabi yi am yépp ban téere la ci nekk ban téere moo ci téere ibnu arabi yi moo am ñaari bayit yi amul fenn amul benn wahabi bu am maqaama indi loola loola benn mbir la loola nag boo ko bëggee dindi da naan këyit gaa ngi nii fii la ko ibnu arabi waxee wala fii la ko waxee xam nga bayit yoo xam ne bis bu nekk ngeen xëy di ko wax ak di ko wax nit ñi man waxoon naa ne bayit bi amul ci téere ibnu arabi ba ma ko waxee yàgg na nee nga xamoon nga ko bu yàgg kii nga woon nga bu yàgg mais yaa mën tan xam lu sa parce que xale bu daw doo fu xale yi jógee rek ba tey jii nii même bi nga jógee di nga lekk ko itam waxagoo fi waxagoo ko maanaam waxagoo fan la nekk ba tey kon ba tey mënoon ngaa noppi ba tey ndax lan ndax ba tey indeegoo fan la nekk ci téere Ibn Arabi xam nga wax ji du wax ju bari wala tëb di saaga wala naan di diw dafa ki wala askan wa mu bokk wala tariixa ba mu bokk yooyu amu ci solo li am solo mooy dama wax ne eh, Ibn Arabi alxaatimi bayit yi ngeen wax waxu ko boo bëggee wax ne moo ko wax indil ma fan la ko waxe fan la waxee bayit yooye fan la waxee bayit yi léegi nag comme amoo fan la waxee bayit yi ci téere Ibn Arabi yëpp nekku ci ak li ngay mën a liir mën a jëndi téere yépp gisoo ko ci benn téere du futuxaat du leneen mais ja jotagul kon tontu kañ lay jot sa sëriñ nee na Ibn Arabi ko wax sa sëriñ wax loolu léegi xaaral ba xam fan la nekk ci téere Ibn Arabi nga door a jóg. nga door a jóg foofu la wax foofu lay amee solo mais tëb mm, wax bu la neexoon sax mën nga wax deux heures de temps deux heures de temps yëpp zéro la ndax li nga laaj indi woo ko waxuma ne ku ko fekk ci beneen téere wala keneen ku ko askanal ibn arabi wala naa nga déedéet yow ak sa sëriñ mi ko askanale ibn arabi ak seen kuréel gi yëpp da ngeen di kàcc ci loolu léegi indi leen fan la ko waxee fan la waxee affaire bi maanaam loolu moom mooy wax ji boo jàppee ne affaire bi maanaam eh, li koy faj mooy ngay tëb di saaga nit ñi eh, kuréel ga mu bokk kër ga mu bokk dañoo bariwul seen bari waaye seen jikko yu bon yi moom moo ko waral xam nga waxi reewande yooyu loolu du ko jarut maanaam loolu eh, lu lu teer la waaye amul solo maanaam xam nga Fadel li am solo ci mbir mooy <laughs> xam nga waa Kër Sëñ Abass ña nga ca xasak ña nga ca kii yépp loolu ñàkk ñàkk argument boo wax rek la loolu man mënumaa metti maanaam xam nga lan mooy may metti ma teg masala ne masala mii xamoo ko nga ñëw xam ko wala ma ne nangam amul nga ñëw ne am na man foofu laay amel wa ndax teg naa loo xam ne jàpp naa ne lii amul ndekete am na foofu laay amel wa metti mais diw jóg saaga ma saaga askan wa mu bokk saaga kuréel ga ma bokk tariixa ba ma bokk loolu amul lu may wàññi dërëm duma ko wàññi xam nga kañ moo may wàññi dara ma ne lii amul fu ko Ibn bi waxee nga génnee këyit guy wane ne Ibn bee ko wax ci pas sàngam maa la dàq liir maa la dàq maa la ëpp xaalis maa la dàq jënd téere maa la ëpp jot maa la gën a kiiwum xel yooyu yëpp daanaka amul benn solo amu ko te yow sax xam nga ne amul solo même ñi nga ci xas wax leen ci lu ñaaw yépp xam nga ne amul solo ndax fii xara maanaam ci sa biir xol xam nga ne loolu nga wax noonu amu maanaam loolu nga noonu gëmoo ko c'est-à-dire xamaloo leen leen lu bon loo leen mën a eh, ŋàññee wala dara léegi man li ma wax yépp amul benn solo itam xam nga lan moo am solo mooy nga ne ma ibnu arabi wax na ko fii xaabidul fiqi ak fu manti dem day kàcc loolu du dëgg ibnu arabi wax ko léegi ibnu arabi wax ko léegi da boo ma bëggee wax ne Ibnu Arabi wax na ko danga may jox fu mu ko waxee léegi te man li ma la laaj tudd ma woon téere kenn dama ne téere Ibnu Arabi téere ibnu maanaam li ma wax dafa leer maanaam téere Ibnu Arabi bu affaire bi nekk nga dem ba ma ko waxee daaw la woon mënoo cee tontu mënoo cee tontu nga ne yaa ma tànqam woon ak seen waa kër léegi ngeen tànqam lu ma tànqam lu ba tey kon da ngaa waroon continuer tànqam lu ndax li ma lay laaj amagoo ko ba tey. li may laaj mooy ibnu arabi fan la waxee ne al arrabu abdun wala abdu rabbun fan la ko ibnu arabi waxee ci benn téere ci téere mi am téere yaa ngi xam nga ko eh, jënd nga ko man nga ko am nga ko sa ordinateur wala am nga ko sa bibliothèque génne ko waxuma yow ak koo yaakaar nañ ko génnee xam nga loolu mooy wedem loo nit xam nga nit boo ko bëggee fatxu loolu ngay def da ngay wax lim tek tankam ne li amul nga indi dat koy teggi waye yow ku wax dara nga ñew sa ko ko bobu toy jappé loolu tontu li ban da'wa la bi sa da'wat bi sa di hadihi léegi nak man mën naa laa ben par ben, man nak bëgg na nga wax ma 200 502 bobu nga xamne ne ca nga wax ma ban tab'ala ah cinq ba nga xamne bo fa dewe da nga fay fekk ar rabbu nga wax ma ban tab'ala Euh, man euh, loolu xam naa ko maanaam xam naa tabaa bi mu nekk ak yooyu maanaam man maa la bëgg laaj nga wax ma ban tabaa la nekk nga ne yaa ca dellu fekk ñu dindi ma leeral benn affaire dañoo wax ne ñaari bayit yi ñu wax ñaari bayit yi ñu wax amul ci téere ibnu arabi lu dul ñeenti téere ñeenti téere yooyu futuhaat makkiya muqaddima bi rek laa tudd ndax fala ñaari bayit yi nekk même barab ba ngay wax ne boo fa demee danga fekk bayit yi boo fa demee benn bayit nga fay fekk benn bayit ñaari bayit yi laa wax fenn la nekk muy muqaddima bi xoolaatal futuxaat ba mu jeex nga génneel ma fu ñaari bayit yi nekk fu dul muqaddima téere bi foo xam nga yow li nga fi wax maanaam man pour nga nga gën ñu ne Fadel moo ma gën a miin futuxaatul makki moom loolu xaw ma kañ la waaye du ren jii moom du déwén itam du du at yi juweeso xëy na ay at ca kanam waaye du tey waaw du ibnul farid du ibnu arabi du lenn ci li jëm ci tasaw nga gën ma ko comprendre gën ma ko liir loolu moom munta nekk nekkul itam léegi nag maanaam wax ji du bari bu ni teggee dara da nga fay teg dara ay diwa ko waxoon yàlla mi ñu tiim xam na ne يو محمد غراب سانغي واجي مي محمود محمود الغراب محمود محمود الغراب بوب رساله بيم يوني ابن عثيمين من مسمكو لير مسمكو غيس فيغي واخني فلا خول غيس فلول دات دي تبد يوخو غيجنا تي يالا والله والقران العظيم سما بوت مسول تيغي تي رساله بوب pour muy leer sama beut musul tege ci risala bi beneen bi wax ji muy wax ci maanaam Mahmoudul Ghuraab moo ko waxoon léegi après mu gis ko fu ñëw mel ne moo ko liir loolu même su fekkoon loolu am de laa ayba fii xam nga lu tax sa sëriñ bi nga gën a yaakaar Ahmed Lo bari na fatwa yu muy fatwa yoo xam ne Ibnu Usaymin moo ko wax maanaam kooku ra'yu Ibnu Usaymin kese la ci borom xam-xam boo doon wër Ibnu Usaymin kese moo wax loolu. wala boog nga ne laj na lajna lajnatu euh, lajna daaima lil fatwa bu arabi saudi lajna daaima kese ñoo wax loolu mais buñ ko ko laajee fii ci Sénégal du mës wax ne lajna daaima moo ko wala ibnu Usayn moo ko wax danga naan ko lii luy atte mu jox la atte bi lam la jox ibnu te du dellu ne ibnu Usayn mi ko wax loolu ba tey loolu du problème ndax buñ ko doon munaqasha duñ munaqasha ay da nga ko waroon delloo ci ibnu Usaymin nag wala nangam déedéet moom li mu wax dëgg la wala dëgg kay lay xool léegi man li ma wax baxam xam wér na wala wérul moo am solo waaye fee nga ko jëlee bi nga ñëwee waxoo loolu lépp ay guddal ay wax la madaariju saalikiin bi waa ji taxqiq am naa ko wallahi alazim liir naa ko tamit futuxaatul makkiya am naa ko ci ay nusax yu bokkul liir naa ko itam ay maanaam lii liiroo lépp mais maanaam maa ngi ko am di ko liir lu ma ci soxla di ca dellu ci saasi léegi euh, foofu amul maanaa ay maa la ëpp xam-xam maa wax léeg maala la naa nga amu ci solo li ma wax daal doo ko dindi moom doo ko dindi ñaari bay yi doo dem fenn ba fekk ko fa ci téere ibnu arabi yi mun te nekk waaw te te téere yi ma wax tamit munoo génne yeneen téere yu mu am yu dul téere yooyu foofu mun a xaca foofu la foofu nga koy kar bu nit waxee danga koy kar ci lam wax doo ko kar ci ay daa wax nangama la mu wax ne baat ba non taabir yi nit di utiliser amul solo li am solo mooy sulbu mawdu bi lii la waxal ci loolu wax ji jeex euh, léegi nag maanaam pour ñu leeralaat ko pour moo téere baa ngi fii madaariju saalikiin bayna manazili iyaaka nacbudu wa iyaaka nastain kooku ibnul qayim ibnu qayim al moom moo ko taalif الجزء الأول به تحقيق محمد حامد الفقي الطبعة الثانية بيغا خامنا موي 1393 1973 nga ñëw ci page 60 bo ca ñewé dana wax ay wax wax yoy yépp nak dana ko léral ci suuf wala bok dana manam bu ibnu taymiya wala bu ibnu al qayyim di wax ci walu ay ahlul ilhaad ak al ñi nga xam ne ñooy wax waxdatul wujud moom ibnu ibnu qayyim waxul ci ibnu arabi de tudd ko mais waa ji moom mooy indi ci suuf wax ne luy dëgëral wax jooju luy dëgëral ne ñoom ibnu arabi ci ñi nga xam ne ñooy wax loolu ci la bokk mooy ne yàlla mooy jaam bi jaam bi mooy yàlla mu ne ibnu arabi mooy te jëmmi wax jooju fen la xamu ko ak ku ko wax nag eh, léegi loola ñu askanale ko ibnu arabi mu ne loolu ngir dëggal lool nag mu ne qaala ibnu arabi alxaatimi cheikhu suufiyati annaatiqu bi lisaanihim moo wax ne al abdu rabbun warrabbu abdun yaa layta chicri man ilmukallaf in qulta abdun fa daaka rabbun aw qulta rabbun annaa yukallaf mu ne lii ibnu arabi moo ko wax lii laa wax ne du dëgg léegi pour ñu indil ma fan la ko ibnu arabi waxe ci ban téere yéenay ashaab dalil hatu qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin fan la ko waxee ci ban ci téere bi loolu laa soxla amu ko noppil ba ba koy am euh, lii ma wàccee nag mooy futuxaatul makkiya al futuxaatul makkiya bu ibnu arabi lii mooy nusxa bi nga xam ne gis nga ko fii ñu bind tubia ala nusxati al muqaabila muqaabala hmm? ala nusxati al muallifi al mawjudati bi madinati quniya maanaam nusxa ba nga xam ne mooy nusxa muallif bi nusxa bi ñu sukkandiku mooy nusxa boo xam ne dañ koo compare ak ba mu allif bi bindoon ñu compare ko nga xam ne la nekk ca bu mu allif ba mooy nekk ci bii loolu lañ ci def moo tax ñu bari ci ñuy taxqiq di toppaat ay waxi ibnu taymiya ci ay waxi ibnu arabi du moins euh, ci kii lañuy sukkandiku ci nusxa bii bii ma la wàccel nii moom la al matbaatu matba euh, tabaatul maymaniya bii bii ci muqaddima bi ci muqaddima bi ca la wax ne wala ma xayarat nii هذه الحقيقة أنشدت على حكم الطريقة للخليقة الرب حق والعبد حق يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أن يكلف فوف ليرنا مقدمة بي لول موتي نيك boo demee ba ca biir anam boo demee ba ca euh, page bi muy wax moom kon moom nusxa bi mu bi mu bi mu sukkandiku mooy an nusxal mu'tamada kooku la ca nekk du li di effacé di di nangam de kooku Sha'raani jotewu ci sax ba ci effacé lii mooy nusxa bi nga xam ne mooy an nusxal mu'tamada nusxa boobu nag moom na indi fan la ci affaire bi nek ndax nuskha bi moy asl bi danaka legui nuskha bobu bo deme ci page euh cent bi mi wax bo deme ci page cinq bi mi wax la fa nek moy moy benn beuyit mo fa nek ah benn bayit moo fa nek moy waqad asharna ila zalika ar rabb haqqun wal abdu haqqun ya layta shi'ri man al mukallaf li rek mo fa nek kon ñaari bay di fan la nekk ci muqaddima téere bi nekkul ci biir de ñaari bay di lañ la ne ci muqaddima téere bi la nekk boo demee ci yeneen téere yi ñu la wax ñaari bay di foofu la nekk léegi dangay indi ci téere ibnu arabi foo xam ne am na leneen lu fa nekk lu dul loolu li sa wax nga mën koo layal ne téere bi boo demee ci téere sax xama fii yéen doon wax ci Ahmed Lo rek moo fi nekk Ahmed loolu li mu wax du dëgg wérut ñun ñu ne li mu wax wérut am ñeneen ñu ñëw naan noo dangaa réew déedéet affaire du dangaa réew indil lay dëgg lan la maanaam li ñu wax ne lii wérul indil ne lii la wéree lañ wax ne fii lim ko waxee nii waa ji waxewu ko noonu ba pare indi ay preuve ne nii amul naan ni mu ko waxee dangaa waroon a yaro déedéet indil ne li nga wax ne moom waxu ko wala li nga wax ne moom def koo wéral te mu wéradi wala li mu wéradil te mu wér nii la wéree affaire bi loolu lañuy ñuy tontoo mais tontu du li li Fadel def du tontu jegewu ko sax loolu reewande la gën a jege rek euh, loolu mooy euh, kii yii maanaam euh, tabaa yii nga xam ne maanaam dañ ko bind ci loxo mooy li ma la wax sànq mooy fi nga xam ne fa la 552 ba génn mom lépp lu muy waxati na indi preuve neena dafa lire dafa xam man wote wu mané dama lire wala mako xam mom kay mom askane la lol legui yow da nga lire da nga xam indi li nga lire lan la fotol ñu page wala nga wax ñu page sangam la nek mom du wax page du la fotol page ah bo démé ci téré sangam legui nan la man téré fan la nek ci téré ba damay wër téré bi yëpp alfutuhaatul makkiya bii ma la jox mooy matboo bi nga xam ne daanaka moom la nit ñi am moy bi nga xamne ne neuf mujallad lay doon bo ñewé fu al mujalladul awwal al futuhatul makkiyya bu ibn arab al hatimi 638 kiko ko dabtu ko tasxiix ko moy ahmad shamsuddin al mujalladul awwal darul kutub al ilmiyya bo ñewé ci muqaddima bi da nga fa gis li ma la wax mom la suluñe ni ar rabbu xaqun والعبد حق يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب ان أنا يكلف نياري بيدي موم تي بونتو بوبو لا نيك تي بونتو بوبو لا نيك ليغي اسك نياري بيدي نيكان نا فنين فودول تي بونتو بي تي بير فوتو حد بام جيخ نيكو تي دو مان ماكو واخ لولو كوم نيغا واخي ني مان گستو مكو ديدت مان مونوما گستو ديم دي لير فوتو حد ييب بور خامني لي مو خيو ديدت تي بوروم خام خامي لا جيلي ني واخ لولو ma vérifier loolu loolu mooy li am soo demee yow soo soo su su fekkee ne da ngaa mën a liir demal nga concurrence ak borom xam-xam yi nga indi man waxuma ne man maa njëkk a wax loolu loolu borom xam dañ ko wax ba mu yàgg man aw ma degré wala aw ma dayoo aw ma maqaamay liir futuxaat ba mu jeex pour xam ñaari bayit yi fii rek la nekk kooku ñi nga xam ne seen liggéey yëpp mooy taxqiq turaas ibnu taymiya ñoo ibnu ibnu al arabi ñoo wax loolu waa man lu ma dal ci ibnu taymiya tey lu ma wax ne ibnu taymiya maanaam ñiy taxqiq turaasu ibnu arabi ñoom ñoo wax loolu léegi fexeel ba dindi ko ñaari bayit yi fii la nekk nekkul feneen léegi yow page ba nga wax ne boo demee da nga fa fekk bayit yi boo fa demee benn bayit ngay wax dañ ne la ñaari bayit yi fii la nekk waxuñu la benn bayit moo fi nekk ñaari bayit yi fii la nekk ñaari bayit boo demee ci téere sàng da ko fekk ñaari bayit boo demee ci téere sàng da ko fekk ibnu yi lépp lu wax mën na ko misaal feneen waaye tamit feneen defee ko ñaari bayit ah fekk ko fa ñaari bayit léegi nag dese na maa leer ba xam yaa ca dellu kay waaw ah, ndax eh, kii bi nga nga wax 652 loolu du nusxa yi ñu taba loolu bindum loxo la bindum loxo waaw ah, ba xam yaa dellu ca bindum loxo ba nag loolu <laughs> dese na maa leer dese na maa leer aywa aywa léegi boo demee ci almujalladu saani maanaam ci nusxa yi ñu taba nii yi nit ñi yor boo demee ci ma kii المجلد الثاني في تحقيق احمد شمس الدين بما لا وخون دار الكتب العلميه بو جا ديمي 258 258 موي في وخي في اسرار الزكاه في والو يتيم ا اعتماد في الالجي جي بور ولا دانيو اعتماد في نيت كي سي مالك بي ولا ملكي بي ولا maal ji wala saaxibul maal ci kan maanaam secret yi nekk ci wàllu azaka ak kañ lay war ak ci kan lay war loolu ba mu koy wax ba ca biir nag ca la am lu muy expliquer ba wax ne euh, waxoon nañ ne ala arrabu abdu arrabu xaqun wala abdu xaqun yaa leeta cheri mani mukallaf foofu rek la bayit foofu la yem ba tey itam du aksu la nekk ca muqaddima ba kii mooy la nekk mooy lii waaye ñaari bayit yi nag nekkul fii moom fee rek la nekk ci biir futuxaat yëpp léegi yaa axi su fekkee ne dangaa am xam-xam wala da ngay liir ñii nga xam ne ñoo doon wax lii ak ñoo ko càmbar ñii ñooy taxqiq ibnu arabi kese la ñuy jàngat ñoom mahmoud mahmoudul guraab moom lam lam wax ibnu usaymin est ce que ibnu usaymin indi na ci firnde wala déet lam leen wax ne leen lii yéen a ngi koy askanal ibnu arabi tul dëgg léegi est-ce que ñoom ak seen mbooloo mi seen mbootaay gi yéen est-ce que indi ngeen ci dara est-ce que tontu ngeen est-ce que wax est-ce que indi ngeen ne nangam ci téere Ibn Arabi la nekk xam nga man déggee naa ci nekkoon kon kon tontuwu leen dara ndax boo leen tontu woon yow tontu ba ngay ñëw jox ma ko waaye comme tontuwu leen te xamoo loo may jox mënoo maa jox dara lu dul saaga ak xaste ba tey nag maa ngi ca taxaddi ba ma nekkoon ku mën a génnee ci waxi ibnu arabi wala téeréem benn ci téeréem loo xam ne daf caa wax ne li ibnu li xaamidil fiqi wax noonu daf ko wax ne al rabbu abdun wala abdu rabbun wala al abdu rabbun wa rabbu abdun loolu fan la ko ibnu arabi waxee ca taxaddi jooja laa taxaw loola ku ko wax loola du dëgg wérut léegi indil ma fan la ko waxee naan ma noo boo demee ci téere sàngam bu doon xumalan risaala benn risaala xumalan wala boo demee ci ifaada tija loolu damaa tax a jóg man li ma tax a jóg mooy ibnu arabi ci téereem fan la ko waxee <laughs> ba tey foofa laa lay xaar yi nga yëpp du ci tontu amul benn fayda waaw da xamoo nag wala da ngaa jël waxi jàmbur wax kook yooyu yëpp amul benn fayda xam nga lan laa lay xaar nga indil ma fan la ko waxee boo ko xamul rek noppil taxaddi ba ngay wax ne maanaam la la ca waxoon du dëgg ak benn yoon lañ ca waxtaan ak yooyu yëpp ba tey maa ngi la ci xaar itam wahabiya baat bi ngeen wax ne wahabi baatu wahabiya ak dañ leen a ci yàlla ak loolu ma ne du benn dëgg Mor Gueye ko waxoon day fen nag yow nga ko doon jàppale ba tey ñëwagoo même su fekkee benn yoon lañ ko waxtaan fukk yoon lañ ko taxul nga ñëw maa ngi lay xaar ba tey ba tey wahabiya dañ leen askane ci Muhammad ibn Abdul képp ku wedd man waxu waxuma yow am na ñu ci bind téere tasxiixu xata in taarixi di wax ne wahabiya xoma lan ni leen askan ne leen ci benn ab benn firqa bu amoon nag yooyu yëpp ay naxasa xandak la dara wéeru ci dara wéru ñun bañ leen askana wala ña leen askana bañ leen askana askanalu leen ci ca la weesu askanawuñ leen ci yàlla itam dañ leen askanal ci koo xam ne tur deret la fi nekkoon Muhammad ibnu Abdil Wahab léegi nag ba xam tuur deret ba ngeen di daw wala yenn muxaalafaat yi mu def inxiraaf nangam ak nangam loolu moo kii wala lim li ko nguur lim lënkaloo ak nguur maam la la leen tax ngeen koy daw loolu yéen a ko war a leeral waaye ñun bañ leen askane askan bi Muhammad ibnu Abdul Wahab la fa lañ leen askane la léegi nag nga ne luxa wi yan ak Murtala Gay ak borom téere booba ak ñeneen di wax ne luxa wi yan loolu wérul man leen seen wax ji yéen moo wérul ataxaddaaka nag nga tontu ci loolu yow wala nga tànqamlu ba su la neexee comme ni nga daan def boo amul loo wax rek tànqamlu ba ba ngay am loo wax booy am looy wax tamit du nekk lu xam-xam ay saaga lay doon ak ay xaste salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokki bureau bi ñu ngi leen di ziar suñ moo dëkka ma ñu ngi lay nuyu euh, ñu ngi doog a jéggal jéggali saw jooyi macha allah am na solo trop <laughs> comme ni ma ko waxee woon sànq la rek xoj bi moom métti na moo tax gars yi di commencé fittandiku sëñ Malick Mbaye boole dafay wax ne mbóot boo ko puudaree faaw nga bàyyi ko mu xaw ma wiccax la wax xaw ma xam naa ne wahabist yi li ma doon wax ci ñoom depuis le début daa mel ni dafay gën di confirmer wu saa yu nekk maanaam firqa bu mën a tuumaal mu xaalifam firqa bu mën a sosal nit firqa bu mën a ngeen jéggal ma ci kàddu gi firqa bu mën a fen comme wahabist yi yàlla bindut ko ci kaw suuf loolu nag commencé ko ca seen ñi ñuy tuddee boroom xam-xam ak seen ñi ñuy tuddee kilifa gis nga ibnu taymiya première misam man li tax ma gën a denc ay mbiram mooy dama jàngat ibnu taymiya xam ne ruusuta ruusuta sosal mu xaalifam sos woo xamante ne moom moo fent sos bi pour en fait attaquer ko ci loolu léegi nag ñoom dañoo nàmpee ci moom loolu من نغنا سوري من نغنا كي واي ابن تيميه موم لولو بوين كو بوين كو دون جوخي ميداي دور لاي ام غيس نغا بن جور جامونو بيما نيكي ماروك وقتان اك بن سبو نين داف دون جيما كونفينك بوما نيكي ابادو بن جور ني واخ با دوجو سي افير ابن عربي الحاتمي مو ابن عربي دافا واخ الكلب والخنزير الا اله هنا خوما لا نك لا نك لا واخا واخ با دانيل مانيكو ابن عربي واخي لولو مو ني با سي فصوص الحكم ماغي امون فصوص تي نيك ما دوجو سي بيت نيك بي génnee fusuus ak enveloppe enveloppe bi yaakaar naa 2000 dollars moo ci nekkoon bu ma juumul xaw ma 1000 jox ko enveloppe bi ak téere bi ne ko demal may naa la deux semaines bu la neexee nga yokk ci benn fan muy quinze jours boo gisee bayit bi ci téere bi yónnee ma téere bi nga jox ma numéro page bi nga téye enveloppe beeg xaalis bi ci nekk. mu dem sonn li muy sonn pendant deux semaines delloo si ma enveloppe beeg euh, téere bi gisu ko ci. maanaam ci yu mel nii nag ci la nit ñi di leen mën a xamee taxaddi leen ne leen nangam indi leen fan lañ ko waxee indi leen ko waaye xam nga bu ñu waxee rek nga daw dem di uti di uti ji dalil wala bu ñu waxee rek nga dem indi hadis wala bu ñu waxee nga dem indi aaya ay sat sataat lañ ciy teg ba finalement nit ñi duñ comprendre mais bu ñu waxee xoj leen taxaw ne leen indi leen fan lañ ko waxee qul haatu burhanakum wallahi lazi la ilaha illa huwa léegi tey ñu commencé génnee seen vrai jikko bi mooy saaga xaste ak génne nit ci mbilla bi buñ amé doole bu leen neexee ñu tërandi loolu rek mom moy wahabisme jazakumullahu khairan wa bi amna salatu wa torop alaykum